il y a toute la presse qui est ici, bon, une partie de la presse du moins. Mhm. Voilà, il y a une partie de la presse, donc euh, on n'est pas encore euh, euh, sur les lieux. On nous demande de, rentrer à 13h. Donc pour la presse, c'est à 13h. Ah, donc pour à là où doit se tenir le dialogue, hein? Hein, donc euh, pour le moment, il n'y a, rien à signaler, Effectivement, effectivement, oui. Pour le moment, il n'y a rien à signaler parce que la presse n'a pas encore euh, atteint le lieu où se déroulera la cérémonie d'ouverture. Donc on est dehors et on va entrer à 13h, Inch'Allah. Actuellement, là, au niveau du Conseil constitutionnel, euh, hein, il y a du mouvement, le candidat Mamboy Diao vient de se présenter. On, l'a annoncé tout à l'heure, il vient de se présenter. C'est le premier hein, à venir ici. Hein. Comme ils avaient annoncé, les 16 candidats retenus pour l'élection présidentielle euh, qui était initialement prévue hier, 25 février, hein. ils sont mhm. là. Aujourd'hui, ils avaient donné rendez-vous devant le Conseil constitutionnel pour un recours pour obtenir mhm. la tenue des élections avant euh, le 2 avril. Euh, ok, pour, euh, c'est pour aviser donc, le Conseil constitutionnel et hmm. l'inviter à, à, réagir, par, rapport à, par rapport à l'attitude du président. Effectivement. Voilà, d'accord, Donc, on se donne rendez-vous à, l'instant. Hein. Voilà, à tout à l'heure. De toute façon, on se tient au courant. S'il y a du mouvement ici, on, fera ça, Ok, ok. Hein, donc, on était en, direct là-bas au niveau de Djamnyadjo. Hein. Il y a notre confrère euh, Sadibou. Hein. Il y a une équipe hein, qui est là-bas pour faire vivre les temps forts, les moments forts du dialogue. Notre équipe dépêchée à Djamnyadjo signale que là-bas, pour le moment, les choses sont calmes et, et qu'ils sont à, ils sont à côté. Actuellement, l'accès est bloqué. La presse est, invitée à 13h

Euh, dialogue bi hein, temps fort les moments forts avant pendant et après avec nous donc nous rappelons rek nous dogu conseil constitutionnel sans seen nous euh, Nous mu ñëw ak ay collaborateur am hein, taxaw hein, donc euh, nous comme saisir situation par rapport à la tenue de l'élection présidentielle kon donc dañuy xaarandi kii di Mamboy rek hmm, mu génn ñu jéem a am euh, réaction am rapport ak situation bi. Ah, kon donc donc yéen a ngi seen noonu ah, Mamboy Diao otam bi moo tax noonu bu weex bi ah, am na oto bu taxaw mel ni euh, Seydou Déthié Fall am na ku génn am na beneen candidat bu génn. am président bu am na kenn ku taxaw génn génn léegi ci otom am na ku génn ci otom beneen candidat aussi ah, dafa mel ni dañu xaw a sori dañu xaw a sori duñ ko gaaw a identifier di leen gaaw identifier am na candidat bu génn. am na ku génn ci otoom léegi nii waaye dañ ko sori dañoo sori on est à peine ah, à peine ngi noonu ñu fi conseil constitutionnel ah, dugg na am na ku dugg léegi ay ñu kan léegi ngi seen am na ku dugg léegi seen nañ fi léegi Mamba Diawo ah moom moom dugg na sànq ak mandataire am Mamba Diawo am na ku wàcc léegi ci otom dugg fa ah mu signal ko ah ñu ngi fii conseil constitutionnel daanaka presse bi dafa sori bunt bi on est ah presque moins de cent mètres daanaka pour nga gaaw identifier kiy dugg ak kiy génn dina xaw eh, a jafe tuuti. kon donc sànq euh, sànq ñu ngi woon en direct aussi ah ak suñu naataango Sadibou fële ca conseil conseil fële ca Diamniadio ah xam ngeen ni tey la euh, démarrage dialogue bi ah bi Macky Sall woote gannaaw euh, bi mu amee face à face ak presse bi dialogue bi nag Tay ak suba ah, deux jours lay war a durer ah, moom Macky Sall moo woote dialogue daanaka am na si 19 candidats yu ñu retenir ñett dinañ ci wuyu ma ah, Amadou Ba am na keneen kuy ñëw yéen a ngi seen benn convoi yéen a ngi seen noonu am na convoi bi ñëw yéen a ngi seen 4 4 yeeg ak euh, feu tricolore yi feu tricolore yi yéen ngi seen noonu ñu ngi ñëw am kuy ñëw euh, convoi yéen ngi seen en direct noonu kon waa baa ngi avancé di ñëw kan la kan moo ci nekk nag kan mo ci nekk kan moo ci nekk kan waaw kan la am na beneen candidat bu taxaw waaw convoi bi yéen a ngi seen 4x4 yeeg ak feu tricolore yi mu ngi avancé na ni kan la ci ñoom am candidat bu avancé di ñëw kal la ci ñoom euh, yéen a ngi seet noonu ñu ngi fii euh, conseil constitutionnel cortége baa ngi noonu taxaw na cortége bi taxaw na euh, dañ leen dañ sori bunt ba nag moo tax difficilement la leen di identifier waaye sànq jàppale ni Mame Boye Diao moo fi njëkk ñëw ñëw na ba dugg ak mandataire am Er, am na beneen keneen ku dugg am na beneen waaw convoi bu taxaw léegi nii am na beneen convoi bu taxaw nii ah, kan la ci candidat yi xam na diñ ko jéem a identifier am na beneen candidat bu taxaw ni ngi seen convoi bi noonu ak feu tricolore yi ñu ngi doon di avancer cal am na beneen candidat bu ñëw waaye xaw ko identifier xaw na jafe ñu ngi annoncé Cheikh Boubacar Camara waaye lu ñuy vérifier la daanaka dañ leen a sori moo tax euh, il faut que ñu vérifier ku ñëw a ci euh, conseil constitutionnel conseil conseil constitutionnel ah, euh, candidat ñu ah, ak si les seize ah conseil constitutionnel ngir euh, conseil ah, ñoom nag euh, ñu ngi ñëw ah daanaka seen ngeen fi sànq Mame Boye Diao ànd ah, euh, am ñu dugg nañ ah, aussi ah, seen ngeen fi benn convoi léegi nii convoi ba ba léegi mu ngi taxaw yéen a ngi seen 4x4 euh, yi L200 yi ak seen feu tricolore yi tax di tax defay noon ñu ngi xool rek sànq ñu ngi ñuy annoncé que c'est Boubacar kamara waaye lu ñuy vérifier la ndax fu ñu toll nii dañu sori ah dañu sori difficilement la ñuy identifier candidat yi kan la ci. mi ngi takk dar mi ngi wax ne convoi bi na bouger mu ngi koy def signe ñu fàttale yi ñu doog dugg ci direct bi ñu ngi fii conseil constitutionnel ah ñu ngi nii conseil constitutionnel yéen ngi seet noonu ah candidat yaa ngi ñëw benn par benn sànq seet nañ fi Mamboy jaaw mu dugg na ak mandat teeram ñoom nag ñoom nag ñu ngi ñëw benn par benn niñ ko annoncé woon Mamboy Diaw dugg na hmm. Hmm. Boubacar Camara Ini adalah sànq Boubacar kamera ñëw na koy Thank you. yéen hmm. a gis noonu sànq convoi bi Boubacar Camara ñëw na. ngi seen noonu léegi kii di mandateeru xalifa Sall Moussa Tine moom ngeen di seen noonu mu ngi dem noonu ah moo sol costume bi noonu yor sac bu marron bi noonu ah mi ngi noonu di avancé Moussa Tine ah, moom mooy mandataire xalifa Sall taxawu Sénégal sànq yéen a ngi doon seen sànq Mame jaaw Diao après sànq convoi bi ngi doon seen sànq ak feu tricolore di aussi candidat Boubacar kamara moom aussi ñëw na aussi yéen a ngi seen léegi ah, kii di Moussa Tine mandataire Khalifa Sall moom tamit teew na léegi en 11 h ah daanaka sànq yi ngi doon seen Mame Boye Diao coalition Diao 2024 de même que Boubacar Camara ñoom ñi ngi ci biir aussi kii di Moussa yéen doon seen léegi noonu mandataire Khalifa Sall ah, moom tamit mi ngi noonu di avancé ci porte ba. daanaka dañu xaw a sori yéen ngi gis image noonu am benn bouchon bu ndaw oto yi xaw a taxaw noonu si buntu conseil constitutionnel bi yéen ngi seen oto yi donc y a du mouvement au niveau du conseil constitutionnel fii ah sànq ah 10 heures 55 minutes ci la kii ñëw Mame Boye Diao Boubacar Camara topp ci aussi yéen ngi seen léegi ah, kii di Moussa tin ah mandataire Khalifa Sall. xalifa notaire xalifa Sall Moussa Tine Moussa Tine euh, tey euh, lundi 26 février tey euh, aussi doon bésu démarrage dialogue hmm. démarrage u dialogue bi démarrage u bi kon ah, donc ah, le conseil constitutionnel ah, ñu ngi fii ci conseil constitutionnel ah fii di xaarandi rek candidat yi ñëw di aviser conseil bi déposer requête déposer requête ci conseil constitutionnel bi rek ngir exiger rek la tenue de l'élection présidentielle aviser ko ci situation bi ndax ñom tay euh, dialogue bi ñom duñ ci dem hmm, duñ ci dem ñu ci japp nañ ni dialogue bi Ah, c'est pas nécessaire hein? Ah, donc dem bu ngeen déggee ah, Pape Djibril Fall aussi kii di Déthié Fall aussi ah ngeen gis Cheikh Tidiane marche pacifique euh, force vive de la ville de Pékin benn kaddu la daanaka ñoom ñëpp lii di euh, dialogue bi gis ñu importance am gis ñu nécessité am ne nee nañ ndax processus mi ngi wéy ba conseil constitutionnel mi ngi wéyal processus bi kon jàpp nañ ni jàpp moo ci des ndax jotul jarul waxtaan jarul dialogue am na beneen euh, ñu ngi seen aussi y a euh, mel ni am na beneen candidat bu ñëw mel ni am na beneen candidat bu ñëw beneen candidat bu ñëw y a des ci buntu conseil constitutionnel bi nag ah pratiquement pour le moment Mame Boye Diao ñëw na Boubacar Camara Moussa Tine mandataire Khalifa Sall aussi y a un mouvement waaye oto ñoo ñoo xaw a gêné tuuti. avons touti bouchon Nous ni ndax eh, taxaw mi ngi taxaw di waxtaan ak police yi eh, mi ngi di dugg nak eh, daf ñu won motax mënu ñu ko identifier bu baaxa baax donc ñi ngi fi conseil constitutionnel hein, depuis 10 heures ak bokk Dakar Actu TV hein. mu doon loo xam te ne bu à chaque fois la ñuy ànd ak yéen ah, vous êtes des milliers à nous suivre pratiquement Hein, à chaque fois comme nous ñu dit, rek bu hein, hein, à tout moment à l'instant à chaud c'est avec nous c'est aussi c'est avec vous hmm. avec nous c'est avec vous hmm. donc il y a des mouvements y a des mouvements mais comme ni nga dit, la circulation bi tuuti mooy xaw a gêner suñu euh, image yi hmm. waaye vue bi c'est dégagé tey jàll nañ ya yéen a ngi seen takk der yaa ngi non taxaw ah ñu ngi noonu taxaw euh, takk yi si buntu conseil constitutionnel mi ñu ngi noonu taxaw ñoom aussi ya trois pick-up ah quatre voire quatre pick-up yu taxaw à côté en face ah y a du mouvement am na avancer ñuy avancer hmm? aussi jàpp nañ ni ah, euh, bésu élection yu ah rappeler rek euh, juste position société civile yenn kuréelu société civile bi ci élection ci dialogue bi lii di forum civil ñooma jàpp nañ ni duñ dem si dialogue bi ndax ñoom.